arbitre bi sifflé na diggante Géant ak Doudou Sané Géant moo ngemoo mu bu weex bi Doudou Sané moo ngemoo mu bu vert bi Géant daw na dox ci kaw Doudou Sané Géant mu ngi dox ci kaw Doudou Sané attention Doudou Sané jël na tànk Géant bi oh attention Doudou Sané daan na Géant Doudou Sané daan na Géant Doudou Sané daan na Géant doole doxul Sané daan na géant